affaire fas yi ñuy wax moom bu fekkee Jomaay moo wax loolu wala ministre bi kon Jomaay war na daf ñoo war ñun askan bi yaa ngi dégg ndax mënuñu ko xeexal dem ci kaso Jomaay ci moom laa demee kaso bay door a ñëw yaa ngi dégg moom ku ko waxoon ne dina wooree kaso tëwëg se pale du ko gëm yaa ngi dégg kon na xalaat ñun fas yi si la ñuy yor ci lañ teral suñuy waajur si lañ yor suñuy jabar suñuy doom kuñ ko bëgg a xañ moom dang ñuy rey rek ñun pare nañ pour jàmbaarloo ak moom mom ni mu tongalee Macky ba Macky dem ñun tamit ñu tongal ko ba mu dem bañu ñu ci comme li dal Macky mom nako ko dal dé yu bari na si am mom na jël loolu mu tek ko ci suuf wa bañ ñu si dara. la rek xam nga gaay mom ñu ci bari ñu bëgg borom seret ñun ñu ngi yor seret man ma yor seret mais ma ngi permis ma ngi dool auto mais fasi moma gënal auto ndax man lima mëna am ci fas mënu ma ko am ci auto man fasi moma gënal nañu ñu ak fas ñu liggéey sàcc ñu fenn ñu def ñu luñuy téré tere yamba ñu bàyyi ñu liggéey rek ah assurance bu ñu teree fas moom day metti de dañuy taxaw yoraa suñuy jaasi rek taxaw si kaw télé bi ah billaahi ñoom dégg nañ li may wax ñoom ñëpp bépp pëlis xam nañ ma bu ñu teree fas yi moom day yoraa suñuy jaasi rek taxaw si télé bi ku fi jaar ñu nangu li nga yor bañ ñu si dara ah nañ ñu bàyyi ñu liggéey si jàmm ñooy ñu nekk si jàmm. jomaay ñun dañ ko xeexal ci manifestation yi yaa ngi dégg mu xamal nañu carrément affaire yi warul yombu ñun Sénégal day sot ñun tamit suñu xol sot na bëgg nañ ñu toog yaa ngi dégg pour dëkk bi naat mais ñoom seen toogaay dëkk bi naatul ay kër jàmbur yu ñu liggéey ba muy waaje pare ñu ne dañ koy taxaw daaneel ko léegi ñooñu seen i borom sama benn père ngi père pàcc yorul baar la yor di jaay di taxale mu ngi nii dem na ba jënd gaale tabax bu muy waaj a egg ñu ne dañ koy daaneel léegi kooku loruñu ko ak njabootam dafa metti na na jamaay na bàyyi borom kër yi seen kër yi ñu eggali ko ñu dem dëkk ji mu xooli leneen. moo gën li muy def nii li muy def amul benn sens day wax du fayantoo day fayan doo nañ bàyyi loolu te nag maa ngi leen di wax euh, sama benn kii nu mu tuddati. nga nga ku génn rek wax lu mu dund yow loo fa dund. non man moom wax dëgg yàlla kaso moom dund naa ko presque booy xool def naa fa ay huit ans et quelque waaw may booy ba léegi maa ngi dem ak ñëw yaa ngi dégg xëy na nag samay waajur ñoo tax sax xam nga ma teggi sama tàng ndax sama yaay or or jaay li mu yoroon lépp jaay na ko financé ko si man xam nga samay rakak may jàppale amuñu doole tamit mais tamit benn instant yooyu yëpp daw naa génn sama mère moo ma bàyyi quoi ak sama samay waajur ñoo ma bàyyi te instant bi naa ay njaboot yaa ngi dégg kon bu ñu yoree suñu fas di liggéey. am nga am ma la liggéey la métier la waaw par rapport dañoo dafa kasal loolu lañ leen di wax yow tënk kon bu leen yàlla suñu borom mayee ñu yor seen alal jënd seen matériel toog di ci liggéey kon lañ leen bàyyi ñu liggéey parce que moo gën sàcc moo gën fen bi xam nga jëluñu alalu jàmbur sàcc ñu agressé wuñ kenn suñu daan doole bu ñu xëyee tax nañ suñu ut li ñu kër ga. waaw mais tey bu ñu fi jëlee dawa leen di jox ak lan nga leen fa nga leen mooy gën a métti rek jàpp ne mooy changé dëkk bi changé wul dëkk bi bu ñu ko fi a parce que ndaw ñi amuñu leen lu fas sentirul leen lu fas mais booy dindi dara di fa naan da nga ko fay jëlee da nga ñi yàq ñi baax ñu ngi baax ba ci kalandoo am na ñuy liggéey te yàlla tax am na ñoom dañuy sàcc loolu ci métier bépp la métier boo gis am na ñu ci saltel mais ñiy liggéey liggéey moo leen tax a jóg ñiy jël alal jàmbur alal jàmbur leen tax a jóg ah. waaw situation mooy li may wax rek maanaam dëkk métti na ñun dañoo foogoon jaay président bu ñëwee ki toog mooy jàppale ndaw ñi parce que moom loolu la ñu waxoon quoi ndaw ñi laay dimbali xam nga kon moom bu ñu amee ci moom yaakaar ba pare gars yi ëlbatee ko wooteel ko ba pare ne moo war a jàppale jeunes yi jàppale xale ñu liggéey kon à part moom mu ñëw am ci yaakaar ba mu bëgg a teg lii loolu nekkul xam-xam quoi pour man na jéem a ut beneen xam-xam quoi wala boo ñu fi. suñ ko waxee ñoom xam naa yoon ndékk ndékk bu neex rek affaire yooyu noonu mais loolu ñuy wax noonu egguñ ci suñ ci eggee lay neex waaw ndax ñun seret yi lañuy suturoo quoi si la ñenn ñi si lay lu bon defuñu dara ñu dañuy tax suñuy fas di liggéey di daan suñu doole te fas yi nag moo ñu koy tax pour dépasse affaire yooyu noonu am ñoo xam ne dañ cee waaw si la ñuy jàppale seen doom ñii si la ñuy jàppale seen yaay ñii si la ñuy jàppale seen papa moo tax ñu si daan suñ doole mais du leneen du bon du lu bon du dara waaw. xam naa daa am lu ñuy jox waa bu nekkee daa am lu ñuy jox nag suñu xool lu ñu ko waxtaanee waaw loolu garaawul suñu mënee joxe a affaire ñu cek cek waaw ñun garaawul ñu xool sareet moom ñoom ñoo xam ku waa xam nga ñoom ñoom moom réew mi ñoo yor réew ku waa waaw ñoom ñooy dogal nguur moom kenn mënu xeexam liggéey a booy ko gis waaw ñëw liggéey daan suñ doole timis pil booy bu nekk ku nekk dem ñibbi rationné sa fas dem tëddi gaa ñoom suñuy wax loolu xam rek ñu bëggul borom saret yi ñooy wax loolu waa ñoo xam ne rom romb borom saret yi borom saret di leen déranger ñooñu ñooy wax loolu ñoo xam ne bëgguñu ñu ko waa mais ku ñu bëgg rek xam ñu xam ne ñun dañuy liggéey ci lu baax lañ nekk